يحسمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر حمدت من يحسمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر حمدت من يحسمني من الضرر الجلال والجد والبصر nuyoo dañ koy teg ci loxo sëriñ Mourou Mahfouz Mbacké mu jaarale ko ci sëriñ Cheikh euh, sëriñ Aliou Mbacké moom sëriñ Fallou bi toog ak sëriñ Abibullahi Mbacké sëriñ moom sëriñ Abibou mu jàll ci mboolem ñi nga xam ne sëñ Bayten doon na leen lim léegi délégation yi fi ñëw sëñ Bayten jaar na ci léegi kon sëriñ si ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen sant ak gërëm ak ñaanal wér gërëm ak gudd fan seenu taxawaay ci liggéeyu sëriñ bi li ngeen ci yéene yàlla na ci am lu kawe njort ci barke borom Touba ñoo ngi fii ci village Touba Ndiarème quartier bu ñuy wax Assirou ngir war a fee tàmbali liggéeyu juróomeelu barabu fajukaay mu mel ne ni ñu ko xamee Touba ca liggéeyam yu njëkk da koo ci fajukaay. ñu dégloo ak dégloo ak dégloo. xam gu ñu xam ne bokk na ci li gën a yitteel doomu aadama nit ki ginnaaw bu doonee ab jullit doon ab taalibe lam war a saytu mooy wér-gi-yaramam ndax loolu mooy tax ak jaamu yàlla mën a ñoom euh, sëriñ maam Thierno Ndiaye chef de village bi ñoo ngi ko nuyu bu baax te di ko ziar kon di wax ne rek euh, poste de santé yooyu nga xam ne moom la Touba ca kanam di taxawee bi ci jiitu mooy bu Lansar booba noppi na ba liggéey ba tàmbali na bi ci toppoon mooy bu Kër Gol booba noppi na ba liggéey baa ngay waaj a tàmbali Euh, sanc daaru salaam ya quartier ba ñuy wax Boborel booba tamit daanaka noppi na ñeenteel bi moo doonoon euh, daaru xadim booba liggéey ba tàmbali na ba ma nga yëkkati bu ñu sori juróomeel bi mooy bii mu nekk nii kon ci quartier Touba bokk ci village Touba Ndiarème ñu koy wax quartier Assirou bii nag tàmbali gi bokkutoon ci ñeent yi nga xam ne moom lañ tàmbalee woon moom lañ yëkkatee woon donte xam nañ ne dëkk bi li fi manqué ci ay poste de santé ëpp na téeméer ni ñu koy waxee ndax poste de santé dafa bokk ci bërëbu fajukaay yi nga xam ne ñoo gën a jege askan wi ñu koy wax santé de proximité bii lu tax ñu toftal ko ci soxna ci suñuy wax soxna Soda Xumma moo amoon xalaat bi waxtaan ci ak waa Touba ca kanam bi mu ci waxtaanee ak ñoom ne dana ko ànd ak ñun yëkkati woon luy tolloog juróomi million jébbal ko Touba kanam ne moo ko ci tàmbalee jataay bii sax woo woo nañ ko ci ngir mu fekke ko waaye dafa mel ne dafa am ngànt ba tax ñëwut kon moom ñoo ngi koy sant bu baax di ko jaajëfal moom soxna Soda Xumba bi mu ñu ko joxee nag fekk booba liggéey yi bari na am yu ñu engagé woon ñu ne wan nañ bàyyi ba yooyu wàññiku ba fii xaw a am tuuti bu ko defee ñu daal ko ci toftal loolu moo sabab tey bi mu jàpp jàppandee ñu nag ñëw fas yéene ko tàmbali di ñaan yàlla ñu àggale ko ci jàmm ci barke borom Touba euh, liggéeyu Touba ci kanam yi nag bari na bari na lool yaatu na fenn fu nekk ña ngi fay def dara waaye loolu yëpp ñi koy ni ñu ko waxee woon fii démb ndax démb ci ngoon ñëw nañ fi fekk fi kilifa yi ñi nga xam ne ñoom féeti ci jàkka ji ñu waxtaan ak ñoom waaye lu ñu leen waxoon mooy liggéey bi seenub liggéey ndax Touba ca kanam bu mënee tabax ay poste de santé bu mënee jënd ay ambulance bu mënee dugal ndox loxoom ci ndox mi moo xam ndoxum naan mi la moo xam ndoxum taw yi yooyu yëpp bu ko mënee dafa fekk ne weer wu dee dana am ay mbokki taalibe yoo xam ne gëm ak fas yéene ànd ak Touba ca kanam liggéeyal sëriñ bi ci dëkk bi tax na weer wu dee ñu génnee ñaar téeméer dugal ko ci Touba ca kanam loolu mooy tax li Touba a kanam man di ko man liggéey yu lu mu nuru nuru bari ci ñaari mbir rek la tënku bi ci jëkk mooy weer bu dee ñu dajale ñaari téeméer def ko ci Touba ca kanam liggéey la ko sëriñ bi bu ñaareel bi mooy ay pas-pas ay loxo yu jaayante di ci liggéeyal sëriñ bi li tax loxo yu jaayante yi am ci solo mooy Touba kanam bi mu tàmbalee liggéey ak léegi dañuy wax ne li mu dépensé gul matagul milliard donte li mu dajale ëpp na tuuti milliard milliard bu teg ñetti téeméer wala ñeenti téeméeri million waaye lim ci dépensé gul matagul milliard kon desal na ñeenti téeméeri million yu teg tuuti yoo xam ne mi ngi ci compte yi di xaar yeneen liggéey yu mag yi waaye lu tax liggéey yi bari loolu te yaatu wet gu boo xoolee gis fa lu fa Touba ca kanam def ba noppi li mu dépensé gun àggagul ci milliard lii tax loolu mooy euh, liñ koy wax bari na barkeel gu liggéeyu sëriñ bi barkeel ak yéene joxe sa alal ci pas-pas mu tegu ci loxo yoo xam ne ñoo ngi koy saytu di ko sonne ba dërëm bu ne ñu man koo topp ba xam ne fii la dugg loolu sëriñ Abib mi ngi ci seen ginnaaw firnde na ci bi ñuy inauguré poste de santé bu Lansar génne woon na document yëpp teg ko ci loxo sëñ Muntaxa ne ko yëpp këyit bépp dërëm buñ ci mas a jaarale këyit yaa ngi nii waaye beneen bi ci bi ci des li tax Touba ca kanam ab liggéeyam barkeel ba bu dugalee bu am ba dajalee tuuti xaalis man cee def lu rëy dafa fekk ne am na loxo yoo xam ne am nañ pas-pasu liggéeyal sëriñ bi te yàlla tax ndax li ñuy wax fonctionnement te mooy liy doxal mbir moo xam gasoil la moo xam ay salaire yu ñuy fay la moo xam ay nit ñoo xam ne dañuy dagg seen i waxtu di ko liggéeyal sëriñ bi loolu bu ko doon fay kon li Touba ca kanam di dépensé ci lu doon dana romb lañ cay def waaye da cee bari loo xam ne nag pas-pasu jaayante moo moo ca ànd moo tax lañ cay def ci xaalis dëgg-dëgg xaalis mën naa bañ a tolloog la nga koy gisee ndax bis bu set nga gis fii projet bu Touba ca kanam def ba noppi ne la nangam la ci def te loolu bu ko geneen kuréel doon def dana la ci fayu loo xam ne da ngay xam ne pas-pas ak liggéeyu sëriñ bi liggéeyu sëriñ bi te yàlla tax wuute na ak liggéey boo xam ne dañ koy borom daa yor dooleem rek di jaay loolu feeñ kàddu yi duñ ko guddal li ñuy wax rek mooy liggéey bi tàmbali na waa koñ bi seenu liggéey la poste bi seenu poste la ni ko sëñ Moustapha Diagne mi waxee woon démb liggéey bi laaj na ay saytu laaj na ay loxo yi ci jàpp ci wet yëpp waaye laaj na tamit ñu xippi bët yi ak nopp yi di xool ak déglu lépp loo xam ne luñ gis la lu mën a yàq ñu teel cee taxaw lépp luñ gis na lu ñu war a defar la ñu teel cee jàpp bépp liggéey boo xam ne ci biir post bi dafay laaj léeg-léeg ñu santaane ko moo xam ab sëkk la moo xam am la moo xam leneen luñ ci mën a jàppe ñu ñëw jàppe ko ca ndax Cheikh Mamadou Makhrouss ñu ngi lay nuyu di leen siyaare yaa sa bokk yu baax yi nga àndal liggéey bii ngeen door ci dëkk bi ñun doo ngi ne waroon moom yéen yi ci jàppale nag jërë ngeen jëfati jërëjëf nag ku mos a jëf rek lañ koy wax kon nag Mbàkke yàgg ci loolu lii nag mbir mu am solo la moo xamante bii ne euh, maanaam li sëriñ bi ñaanal dëkk bi rek

ndigal bu tëbee tëbal doo taseeg dara boo ko jëlee tëb nag bu tëbee raw la danga may may ma dem seen seen sii waxtaan waxtaan ak moom bu joxee ndigal ma waxtaan cee bokk fi nekk buñ ñeex buñ fekkee jubu na leen ñu ànd ca loola loolu tam wax ni la dégg na laaj waaye suñ bi santaani moom loolu rek la ñuy def ba waxee sëriñ bi mu boole mag Cheikh Ndiaye ñëw fii wër béréb bi biñ ko waree dem leeralaat ko mu ne gannaaw yaatu na nañ ko fa def ca maanaam def liggéey bu baax a baax yàlla dogal maanaam soxna si ñëwaat ne man di dama xalaat bu mu amoon dem ca Touba ca kanam ci sëñ Abibu moo dee waxtaan ak moom la mu am jox ko ko bu ko defee léegi mu taxawal liggéey bi ma ne ko loolu léegi boo ko demoon joxoo ko dara tax boo ko waxee sëñ Abib ni ko bëggee la koy defee waxu balaa nag maa nga mën caa jéem dara loolu mooy sababu liggéey bi kon nag mu ngi sant sëñ Abibu di sant bokk yu baax yi mu àndal leen xam ne fas na yéene ànd ci liggéey bi liggéey bi wax mooy li nga xam ne bii mooy tax mu mën a gën a jàppale waaw nga xam ne kon mbokk yi fi nekk yëpp du rawatina ndaw yi ne ñëpp maase jàpp ci liggéey bi jàpp ci liggéey bi tam buñ ci yem nañ jàpp ne ñëpp jàpp ci maanaam Touba ci kanam ndax ñaari téeméer tëju tëwul kenn te it na ngeen xam ne liñ fi indi ñaari téeméer yu dajale feneen la wa ilaa ay benn benn yoo xam ne jox ko fii loolu nag mbir la moo xam ne biir buñ la koy defal da nga ko war a xam nga xam ne kon ñu ngi sant sëñ Abdou Lahad Ka mi yebal euh, Alaaji Mbay Maam Mbay ñi ndax ma ci conseil laa bokk mu mel ne bu fekkoon ne Maam Mbay ñëwutam mën naa koy teewal ndax comité comité santé man maa topp ci moom kon nag sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaanal Cheikh Mamadou Baram bi nga xam ne moo joxoon béréb bi ak sëñ Saliou bi nga xam ne moo fàkkoon fii ba li mën am tey mel na ne kàddu yi li Abdou Fara gi waxoon daanaka doon sax mënoon naa yóbbaale kàddu yi waaye sëriñ bi dafa ma jox ndigal ci ne naa ko yëkkati kàddu yu cant jëmale ko ci kilifaam yu baax yi tàmbalee ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Touba ñu di ko ñaanal suñu mboxam yàggal ko fi lool te may ko ak wér te àggale naalam ak yéeneem ak mébétam ak bëggam ci yoon wi ndax yéeneem ak naalam ak bëggam ci yoon wi su àggee mën nañoo wax ne mébét sëriñ Touba yëpp dana àgg xol taalibe yëpp yi dana sedd kon yàlla na ko suñu boroom yàggal lool te may ko wér di nuyu itam kilifaam yi toog ci jataay bi Cheikh Mouhamadul Mahfous mi nga xam ne moo fi teewal alxaaji maam Thierno mi nga xam moom la sëriñ bi joxoon ndigal li yàlla mu jox ndigal lokkam ji di Cheikh Mouhamadul Mahfous mu ànd ak sëriñ Aliyu moom Cheikh Mouhamadul Fadl li mu ko waxee di jox baatu sëriñ maam Thierno ak doomam sëriñ Modou Abdoulaye ak njaboot gi ñu ñëw teewal fi alxaaji maam jàng kon Cheikh moom suñu Modou Mahfous sëriñ Habib mi ngi lay delloo am nuyoo ci turu cant li la yóbbante it am nuyoo cant sa kilifa nga xam ne moo la ak waa seen xol sedd na guyu seen xel dal na ndax liggéeyal bu liggéey bu ñuy liggéeyal maam Cerno Birahim nekk ca ku nekk xam na ne booba liggéey doon na xel rafet njort yi mënu ko weesu ndax sëriñ bi léppam maam Cerno la ci ma a jiital lu mu mën a doon rek Cernoy doon jëriñam ci lépp jumaa ji ba mu koy tàmbali ba mu koy moom la woo ak sëñ Mbàkke Buso wax sëñ Mbàkke Buso ne ko na ko natt génne xebla ba liggéey bi na ko Cerno taxaw te mooy te mooy li ko gënal ci kaw suuf léppam it lépp sëñ bi it maam Thierno ko yow loolu ñu xam histoire yoon wi yëpp xam nañ ko te duñ ko nattable kon lu ñuy defal sëñ Tuubaa Thierno Birahim ci rek xel war na caa dem njort war na caa rafet nee na waa Tuubaa ci kanam seen dal na lool ci di tàbbi si maam Thierno ci liggéey bi waaye teewaay bi ngeen ko fi teewal tàmbali liggéey bi itam xelam dal na ci kon nee na mi sant bu baax sant dafa mënta wees sant waaye sant na sëñ maam Thierno bu baax ci taxawaay bi ak itte yi ak pastéef yi ndax man naa am ngant ba noppi ne si ngi noonu waaye nag ba noppi fab ak njabootam yebal leen ne leen dem leen teewal na fa taxawal na fa mel na ne jëmmam moo fi taxaw boo fi taxawee ànd ñi nga àndal taxawal ngeen fi jëmmam mel na ne kon jëmmam taxaw na fi kon sëñ bi daal nuy sant yóbbante ak cant bu baax ci suñu maam Thierno bu delluwaat Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne itam mooy lépp te moo ko jox ndigal li di sant yi nag mbooleem mbokk yi fi teew di fab nuyoo waa quartier bii di ko teg ci loxo sëñ maam Thierno Ndiaye mi nga xam ne moom yàlla dogal na mooy chef de village bi sëñ maam Thierno sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu di fam nuyoo waa quartier bi di ko teg sa loxo nga jottali leen ko di xam ne ne loolu mu wax liggéey bi moom liggéeyu sëñ Touba tey bi sëñ Touba yëpp ñoo ko bokk waaye lii ñu def fii samp ko fii nag yéen lañ ko fiy defal ngeen xam ko ngeen xam ko sàmm ko te jàpp ko te ànd na ko ñi koy taxaw ba liggéey bi àgg loolu li sëñ bëgg def nañ li ci jëwiñ nag nga ànd ko ak ñoom di ci soññ it waa quartier bi ci waxtu wu nekk kon loolu itam sëriñ bi nee mi xelam dal na ci ndax loolu la gisoon nga koy doxee ci dëkk bi kon bu ñëwee ba fii nga nekk ñu fekk si la fii di fi samp lii buñ ko tegee si loxo suñu xel dana ci dal kon na ko taxaw ci wet yëpp lépp du ciy defar nga taxaw ci te loo ci seen lu ñu ak yàq nga génneeku ci asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi bokki taalib yi maa ngi leen di nuyu nuyoo bu sell kii di ko di ci jiital sama bokki bopp yi fi nekk di sëriñ Aliou Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal te di sëtub sëriñ Cheikh Awa Balla ndax soxna maam Bousso Dior mii waajuram moom alaaji maam Thierno Mbacke ñoo bokk ndey ak baay ak Cheikh Habibullah ibn Cheikh Mahamadou Fadal jàmbaar ji nga xam ne bokk yëpp maase nañ ci rafetlu aw doxinam ak liggéeyam taalibe bi yëpp maase nañ ci rafetlu aw doxinam ak ak liggéeyam di leen jotali nag kàddu yu bàyyi afidahu llahu wal alawi mi nga xam ne mooy Serigne Touba ndax bi nga xamante ne am nañu yéene taxawal fajukaay bii dañoo dem ba ci moom laaj ko digal mu rafetlu ko jox ci digal sëñ xarit mu batti ak mboolem waa Touba ca kanam tan nit sama kilifa di alxaaji maam Thierno Mbacke mii xalifu sëñ Cheikh Awa Balla jox ko digal ngir mu war a ñëw teg xeer bi maam Thierno dellu joxaat ma ndigal ne ma naa ko fi teewal teewal fi sëñ Mouhamadou Mountakha te xeer wi kon loolu mooy tànk yi kon nag kàddu yi liñ ci ji liñ ci jiital mooy sant yàlla bu baax suñu borom tabaraka wa taala sant sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi sant sunu yaakaar tey que nag di ak Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadimu Rasul radwanullahi alayhi wa nafaana bi di ñaan nag sunu borom mi man lépp al ali qadir mu yàggal fi a cheikh mouhamadul muntaxa may ko fan wu may ko wér gi yaram ba lépp lu mu yéenee lëggéeyal sëñ tubaa ci tarixatul muridiyya yéene ko lëggéeyal islaam yéene ko lëggéeyal réew mi mu def ko nam ko bëgge ndax ak yàggam ak wéram mooy njariñul bokk yi mooy njariñul taalib yi mooy njariñul yoon yi mooy njariñul islaam ndax dara yitteelu ko lu dul liggéeyal sëñ Touba ci biir yooree biir taalibe yi bopp yi ak liggéeyal diine islam kon nooy ñaan sa may ko ci sàkku ci mbooleem taalibe yi sëñ Touba yi ci ñaan la ñaani taalibe yi baax ci sëriñ si alxaji maam Thierno mii sama kilifa di sama mat di taaw sëñ Cheikh Awa Balla moo ma jox ndigal gannaaw bu ko seex Cheikh Mouhamadul Mountakha joxee ndigal ngir ma teewal ko fi amoon na yéen teew fi lool waaye xat-xati jamono bi moo mu defee yabal ma ni ma naa ñëw teewal ko fi ànd ak jarbatam bii tey sama doom yi nijaay di sëñ Aliou Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal ànd ak doom yi boppam itam di Mouhamadou Abdoulahi Mbacke ak mboolem bokki tali bi ñu ma àndal kon nag sëñ Habibou kàddu yi kàddu yi cant la ak kàddu yi ngërëm. di ko teg ci sa loxo yow mi nga xam ne yaay jiite Touba ca kanam di liggéey boo xam ne yëpp nga koy defal di liggéey boo xam ne bokki taalib bi yëpp nga koy defal di liggéey boo xam ne bokki jullit yëpp nga koy defal noo ngi lay xamal ne mboolem say bokk yi tàmbali ci ak Cheikh Mouhamadou Mountakha ak mboolem jabootu Cheikhul Khadim ñi ngi maase ci di rafetlu saw doxin di rafetlu sa taxawaay di ñaan ci barke Cheikhul Khadim yéene ji nga am ak pas bi nga am saa mooy la kàttan ak ndimbal ak tawfeex ba nga àggale ko ni ko bëgg ndax jéego yi ngay def ak taxawaay bi ngay taxaw ci taalibe bi yëpp ko defal ndax dajale ñaqi taalibe yi ak ñaqi jullit yi di ko delloo ci bokki taalibe yi bokki jullit yi looy mooy mooy di am njëriñ ndax Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wax na ne ab jullit bu faatoo aw yoon lépp dagg na ba mu des yetti yëf yetti yëf rek moo koy fekk ci bàmmeelam bu njëkk bu mooy ilmun yantafiu bi aw amalun aw waladun yad'u bu faatoo yetti yëf rek moo boo xam ne amoon na ko moo xam muy def mu di si jàngale wala mu bindi téere bàyyi fi la ko ñaareel mooy amalun saalix mooy lu mel nii li mu fi tabax ay jàkka wala tabax ay fajukaay wala tabax yeneen yu demee noonu bokk jullit yi di si jariñu la ko ñetteel mooy doom ju yiw ju lay ñaanal garab boo kon nag sëñ Habib bu taxawaay bi nga taxaw dugal nga mbooleem taalib yi ci ñetti yooyu yi kon nag kenn ku nekk amel na la njukkal kenn ku ne amel na la cant kenn ku ne amel na la ngërëm ñu ngi ñaan ci barke Seexul Xadim nga daje ca mu sëñ Tuubaa ci incha allahu taala da nga ci kon loolu rek mooy kàddu yi nga xam ne moo bàyyeekoon ci kilifa yi xat-xat yi bari na ci yitte yi bari na waaye alxaj maam Thierno moo amoon yéen teew fi ci kaw ndigal di ko ak Cheikh Mouhamadou Mountakha jox alxaj maam Thierno nag ñi aju ci kër gi aju ci kër borom Darou Mouhty wan nañu aw yoon ndax ni ko ni ko sëñ Habibou waxee yëkkati ne lim bu takku teg ko ci loxo sëñ Habibou ngir dugal ko ci barkeeloo ko ci liggéey bi ci Touba ca kanam waaye jublu ci itam képp ko aju ci kër gi ak képp ko aju ci borom Daaru Muxti ak bépp taalibe boo xam ne da ngaa am yéene liggéeyal Sëñ Tuubaa nga xam ne loolu war warteef la ci nun yëpp ni ñu ko waxee léegi fi ma jeexale mooy ndigal lii nga xam ne ak Cheikh Mouhamadul ak Cheikh Ahmadul Khadim joxoon na ko borom Daaru Muxti bi mu koy liggéeyloo kër yi ci Tuubaa booba yéenti kër la woon muy barab bii fi jumaa ji nekk di barabu ak Cheikh Mouhamadul Fadal ak daarul xuddoos fi cheikh mouhamadul moustapha dëkk ak ak ak daarul rahman fi sëñ euh, soay bu dëkk ak daarul minan kër si Basiru sëñ Tuubaa xamal maam Cerno Birahim ne ko yenti kër yooyu na nga dem boo demee nga yesal leen kër gu ci nekk na ko def nangami téeméeri meetar ci nekk lu luy ci nekk lu nekk ci kër na nekk ci kees ga suuf si féete kaw na nga ko jàttal bi mu féete suuf kër guy ne nag ma ko sàkketal sàkketi weñ sëñ Abdou Khoudous wax na ne bi borom daaru di jóge daaru Muxti di ñëw Touba dafa fagu mel ni kuy toxu ndax dafa am yéene ne liggéey bii ma sëñ Touba jox li feek melul na mu ko bëggee du ma dellu si daaru Muxti bu mu defee ba sumb liggéey bi di wut lu sàkketi weñ muy ay seng <coughs> wax nañ ne jamono boobu daanaka wër nañu réew mépp ay seng amu fi ba am ñu ko ci ñeewante lool ba ne ko teg koo def sàkketi ñu fateñ ko boroom daal waa ñooyu dinañ maa dañ maa ñeewante rek waaye nag dafa am yaari yëf yu ñu ëmbalante yu ñu ëmbale bu njëkk ba mooy biir na ma ne sëñ mukk lu mu doon am ñaareel ba biir na ma ne man Ceerno Birahim sëñ Tuubaa du ma jox ndigal lu ma dul def wallaahi kon nag fu sàkkete bañ ne dana ma fekk fii ci ma liggéey ko ni ko sëñ Tuubaa bëgg ba jébal ko liggéey ko asalaamaaleykum wa rahmatullaahi